nga ne ñooñu nga ne suñu maam yooyu seen cycle jeex na léegi yàlla dafa dafa Sénégal dafa toll ci croisée des chemins euh, donc yàlla jël pouvoir spirituel jël pouvoir euh, euh, temporel def ko ci kenn nit cette personne là elle est vivante elle est connue si kii mi ngi ci biir réew mi parce que damay wax. mais li nga xam effectivement mais mais mais kan la lan mooy parce que nit bu taxawee muy wax dara loolu muy wax da ci am ay firnde tey Touba ñi may dégg Yoff ñi ngi may dégg Medina bàyyi ñi ngi may dégg ak yeneen këru diine ak Tiwaawan ñëpp ñi ngi may dégg gis nga tey kilifa diine yooyu yëpp nga xamante ne ñoo doon liggéey li may wax nii mais ñooñ ñëpp duggaat nañ ci biir réew mi. juddoo ci kër yoo xamante santu ñu si santuñu ñas ñu Mbàkke ak beneen sant ñoom ñëpp dekkiwaat nañ dugg ci biir réew mi te de 2024 ñuy liggéey Sénégal ñooñu ci la ñuy bokk cest dañuy dugg man damay wax ci scientificité wu yàlla loolu tax ma doon laaj tableau parce que lii effectivement boo koy wax théoriquement ni ça peut être mm. compliqué moo tax ma d'accord ak moom si le fait que mu ñàkk d'accord ak man mais cette personne là nga xam ne silu boobu mu ngi ci moom euh, non je veux bien que tu me dises. Euh, non mu ngi ci réew mi dafay politique. c' est un homme qui porte un projet politique c' est un homme qui va diriger le Sénégal c' bis bu ma amee tableau dinaa ci gën a xuus joxe ay preuves yu leer. Amadou.